kenn ku ne di ko jàmbat te doo ci def li yàlla bëgg li ci yàlla bëgg moo di a ah, képp ku mu fekkoon ci lu bon nga bàyyi ko dellu ca sa borom tuub jéggalu ko yàlla tëjul buntam te buur bu laabiir la nga tuub jéggalu ko man de wax dëgg yàlla ci lu bon laa nekkoon waaye daal daal comme damay dee ëllëg te xaw lu may fekki naa teel a bàyyi li ma nekk rek yàlla daal la ci fekk jàppale la covid bi fi nekk covid bi jeexagul Covid bi jeexagul Covid bi du jàngaro Covid bi yàlla jéppi nit ñi wàcc balaa ci seen kaw wàcce balaa ci seen kaw ñu di ko doyadal di ko doyadal di ko doyadal ba ci fan yi ñëpp daw di wuti ñakk te dañ ko doon kontar balaa la su boobaa nag ñun ñi ñu tëjoon jàkk yi waaye santuñu kenn mu tëj am na nag ñoo xam ni seen pas-pas ci kër Seydi Hadji Malick fii la ñuy doxal rek la ñu ànd ak ñun ko tëj seen jàkka ni bu tiwaawoon tijjiwul du ñu tijji ñun li ñu taxoon a tëj jógu fi mi ngi fi ba léegi moo tax Ahmed Lamine Sall bu Serigne Abba Sall radiallahu anhu ba ñu jëkkee wax tijji booba kaa yi barewul kaa yi barewul ñu ni nañu tëju kaa yi bare ñu ni nañu tijji dafa ni ku gouvernement waxoon nga tëj nga tëj bu la nee tijjil tijjil ñi nga xam ni ba ñuy tëj gouvernement taxul ñu tëj mën nañu bañ a tijji ba gisul leen doy ñu tijji loola doyoon na tontu Sénégal yëpp wax boobu mu wax doyoon na tontu pour tout le monde parce que répétition mooy am répétition mooy am répétition boobu bu mbooloo dajaloo ñuy wax kenn wax dëgg na ñëpp incliné wu rek ci dëgg ga waaye moo gën euh, euh, moo gën man dëggu kii du sama dëgg dëggu kale du sama dëgg ci ñaare li koy euh, waral bokkuñu parti wala bokkuñu sëriñ mu mel na alquran wax na ñu ni lii fi nekk lu ngeen mën a def du fi jóg laysa laha min dunillahi kaashifa laysa laha min dunillahi kaashifa dafay am faw ba mu neex yàlla mu jëlee ko fi su ko defee euh, li ñuy wax euh, li ñu digaloon moo di diine dafa am lu mu santaane ci li ci gën a gàtt moo di fu lii am bu fa dem fu mu am fekk la fa bu fa jógee ñu bare deenañ ci saxaaba yi te jëfandikoo sunna si yonent ak waxam dëggal waxam moo tax ñu dee ca toujours ma wax ni Seydina Omar ibn Khattab day ba ñu ba ko waaje ne euh, da ngay daw dogalu yàlla mu ni ko waaw damay daw dogalu yàlla làqu ci dogalu yàlla mm-hmm. léegi docteur yi li ñu am pour protéger population bi mënuñu leen faj waaye mën nañ leen aar ñekk yi ay anticorps antikoor yooyu moo lay tax a mën a résister lii fi nekk ba bu la dee dalit du la dal dal bu fort waaye du tere nag mu dal la bu la waree dal dan la dal mhm. waaye bu la dee dalit du la gaaw semmal doo gaaw lot kon man de li di sama xalaat moo di bu ñu nee ñekk na ñëkk ñëpp ñàkku parce que mbirum yàlla man li ma gis fii ci mag ñi fi nekkoon ku ci feebar di naan aspirine boobu dañ koy xóoyal di ko naan wala ñuy naan kinin kinin sax lañ jëkkoon indi niwaakinin indi chloroquine indi yu deme noonu waaw Corifidri nag yu kenn xamul mm-hmm. waaye bala ci daan naan benn doom danañ ko téye ni tekk ni tekk jooju lan la moo di yàlla maa ngi sabablu kii nag mënul ci man dara duma faj yow yaa may faj mm-hmm. daal di naan doom boobu ci sabab sabablu léegi nag li ñuy def dañ ci génne yàlla li ñuy def lépp dañ ci génne yàlla léegi li ci des yàlla mënul lu dul fàkkal la yaay seet noo cey daanoo nag yaay seet noo cey daanoo fi mu la war a fàkkal fàkkal na rek nañu dem ñàkku ji te bàyyi weddi bi fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun li nga xam ni daf la dal te xamuloo noo ciy def kala ci tane ci xam-xam dama jox ko sa bopp wala nga laaj ko docteur yee xam ñoo amee docteur ñoo ame euh, ñàkk yi nu nit ñi ñàkku ji te toog xaar yàlla waxal ni yàlla maa ngoog fu ma nekk xam nga ko mm-hmm. li ma bëgg xam nga ko li ma ñàkk xam nga ko bu la neexee loo ma bëgg a defal xam nga foo may fekk yàlla fekk la fu ko neex betti la xéewal ñoo yàlla betti la xéewal yàlla betti la xéewal te ñu wàññi wax ju ñaaw ci télévision yi plateau yi wàññi weddente bi bu ñu ko mënulee bàyyi nañ ko nañ ko wàññi docteur yi nga xam ni ñoo nekk ak yi di sonn guddeeg bëccëg nit ñi di leen daw ñoom ñu di leen ñooxu pour faj leen ñuy ñaan yàlla yal na leen yàlla musal te ku ñu tiim yal na nga wér ñi ci dee yàlla na leen yàlla jéggal yërëm leen ñi ci dund te tëdd fa ñu tëdd mënuñu jóg yal na leen yàlla yëkkati ak jàmm kenn bañ cee dee ñi tëddul yàlla bu kenn tëdd docteur yi nag seen coono yàlla mu mu neen yàlla nañ ci sonn sonn sonn ba xëy suba gis résultat bu positif muy seen liggéey yàlla fay leen ci te dañuy wax ni un bienfait mhm. n'est jamais perdu lu ñu def ci lu baax yàlla ko denc mhm. bu ma ñaamal misqaala zarratin mhm. xayran yarahu aw charran yarahu li ci des moo